donc lu ñu jot ci compte rendu yi mooy ñu bari ñu defoon grève de la faim arrêté nañu grève de la faim bi commencé nañu lekk gis nañu tamit ne Ousmane Sonko samedi ndékki na samedi ndékki na naan na café donc grève de la faim bi arrêté woon na ko waaye docteur bi moo ne gis na ne nekkuloon à l'aise mel dafa amoon malaise te dafa am nag docteur boo xamante ni mu nag ci administration pénitentiaire képp koo xamante ni da ngaa feebar wala moo amul la dal ci biir kaso bi dalay lay génne yóbbu la ñu faj la faj bi nag faj bi nag su la neexee yow yaay wax fii lay faj su la neexee sax yow yaay wax docteur bi lay faj may nañ la ko loolu yoon boo ko maye parce Sénégal aussi état de droit la ñoom nag hôpital principal lañ leen yóbbu tous les jours dañuy fay administration pénitentiaire mooy fay donc foofu Cheikh Bara Ndiaye fa la nekk Pape Alé Niang fa la nekk Ousmane Sonko fa la nekk Ousmane Sonko bi mu ñëwee ne moom yaramam neexul dañ ko defal traitement boo xamante ne duma dugg duma dugg ci détail waaye bi ñu ko defalee traitement bi rek am na féex am na taw féex donc fi mu nekk nii mën nañu jàpp ne santé optimale daara jotu ko ci compte rendu bi ñu jot ci médecin bi parce que les médecins qui vous informent c'est le médecin de l'administration pénitentiaire les médecins de l'hôpital principal donc moom mi ngi ci jàmmam